nga rus sonnu am gàcce nan ñaani paas di saggan ba muy dem nga jóg nag di dox te doo yegg lii ay nan ñaani paas te jog léegi daw dugg moo gën di nekk ba muy déqi ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo kaw ak kaaju muy daw di wey dotaarum mu kàllaf jógal ñaani paas xol ak jur akuk aw ndigal faw nag yëgal yow nii yatt ngay ñaane paas te doo tàbbi mukkit saxaarug ngërëm te jàppoo bu wér yatt yi ñaane paas ku fab xol fa bugg jur fa bugg aw ndigal joxub sang waatal ne doo ñàkk paas cofeel rafet njor takug wóolu it ku fab yatt yi jox ko am ngën ji paas ma faraw wax nag luy saxaarug ngërëm ba dootoo ko réere ti doo réere paas saxaarug ngërëm moo di kët bamba mi ne cas nag jox ko looloo di paas te bambaa ngi nii di yab aw nitam njegam bëgg nga raw jox ko paas